suñu teewaay fii nag ñàkkul yëgoon ngeen suñu suñu ay tànk ak suñu ay jéego ci wàllu loca localité yi nga xam ne ci lañ jëm muy wàllu suñu gox. tegoon ci ay jéego amoon fuñ ci waxtaan ak suñu ay nit ak suñu ay xarit ak suñu ay am di jàmm amoon ci wax dëgg yàlla benn mission boo xam ne tey ci lañ nekkoon di dox loo xam ne dafa concerné suñu quartier suñu juddoo yaroo fi màggee fi muy Médina Médina bi nag euh, fi lañ déggee lépp fii ñu nekk ñi tey nii mooy suñu quartier boo xam ne tey fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee te nit bu ko yàlla nit juddoo ak fa màggee nekkul moo koy sàkkul boppam yàlla moo naan la fii ngay juddoo fii ngay yaroo fii ngay màggee fii ngay déggale parce que doomu aadama laata moo juddu yàlla bind na tracé na fi mu war a jaar fii nag moom suñu quartier la te dañu fier juddoo fi fier màggee fi te nag doomu aadama nag gannaaw ba la yàlla sàkkale fa nga dëkk parce que moo ko wax ci xadis na xutbul xutbul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk tana bu ñëwee réew balaa ngay wax réew ma di dem fenn te fa nga juddoo te nag gannaaw ba ñu juddoo fii ba pare nag ah fii moo ñu tàggat Medina moo ñu def li doon tey dama koy wax ne tey ku nekk fa nga dëkk moom ngay tiitaroo Medina moo ñu def li ñu nekk tey Medina moo ñu forger Médina moo ñu moo ñu créé en toute pièce lépp ñu xam ci mbedd mi ci expérience de vie fu ñu mën a dem mën ko développé tey quartier bi ñuy wax Médina moo ko def ci ñun. gannaaw nag ba ñu yàlla nattoo ñu nekk ay sportif yàlla nattuñu ci làmb jël suñu destin féetale ko ci làmb ñu dugg ci Médina moo ma ci mës a accompagner Médina moo ci mës a ànd ak man mais tey. am na foo xam ne boo fa tolloo ci sport te ñi la koy defal muy quartier bi nga dëkk te tu as les idées nga am idée yaa ngi voyager xam fonctionnement wu commune nu muy demee xam parce que tey boo xoolee y'a quelque années jeunesse bi ay localité mosu leen intéressé daan ci woon impliqué wu tey c'est pas seulement Médina bari na ay quartiers yu bari yoo xam ne environnant yi yëpp ngay gis ni jeunes yi dañoo takku parce que tey xam nañ tey seen destin wu quartier fañ dëkk seen loxo la ne parce que l'avenir appartient à la à la jeunesse loolu nag yàgg na nekk sumay mébét yàgg na nekk sumay engagement ba ma Médina defaree ba pare lan laa war a servir la Médina tey nekk ci quartier bi juddoo fi yaroo fi màggee fi yàlla may ma ay opportunité may ma expérience de vie ma yàgg voyage yi xam nga partout war a mën a am ay link yoo xam ne tey war naa ko mën a contribuer ci quartier bu ñu naan Médina ki nga xam ne ñu moo moo def moo ma ñoo def li ma doon projet bi loolu parce que tamit foo boo dëkkee ci quartier da ngay fexe ñay doxal nga fexe bokk ci lu ma jëlee nag yoon woowu nag ànd ak suma ay xarit suma ay am di jàmm suma ay papa suma ay yaay suma ay sœur ay mouvement yi nekk ci Médina bi ma bi ma tegee projet bi rek dafa intéressé ñëpp amul ku mu intéressé wul moo ko tegee rek amul ku mu fan képp kuy mouvement fii muy kuréel boo mën a nekk bi ma ne bi ma ko bi ma tegee projet bi gis naa sa appui ñëw nga ci man dama ñoo bokk gis-gis bu ñu demee nag nekk ci loolu nag ba dara desul lu dul càppaandaw ga tey bu ay changement amee dafay baax ni tey nit ki nga xam ne boo waxee nit ñi dégg la dafay baax tey ay changement bu amee tey nga woowaat askan wi parce que am na ñu bëri ñu déglu ci diaspora bi partout di ma déglu di ma xaar pour tey ma yëkkati sama caution dem joxe ko bokk ci jongante yi loolu moo doon initiative bi te loolu ci loolu lañ nekkoon ba léegi biñ ci biñ ab changement amee démb la te comme maa toogoon wax askan wi am na ñoo xam ne au début sax dañ doon naan giri ce que li muy wax nii sax réellement est-ce que quel quel est-ce que nekkul xam nga te te kilifa lépp lu muy wax parce que ëllëg moo tax parce que fii lu fi am ci àddina ñoo la vaar la yóbbu te nag nit nag wala yàlla mayee kàddu ngay yëkkati di wax nit ñi di la déglu ci lépp loo mës a ci ay kàddu rek na nekk loo xam da nga koy jël topp ko ba ca cappaandoo ga loolu moo doon suñu yéene looloo nekkoon suñu mébét looloo mës a nekk suñu ay engagement waaye changement dafa am mooy tey bari na tey ay parti yu fi ne yoo xam ne tey yàgg nañ ma sollicité tey pour tey ma ànd ak ñoom du ma fi nekk nag di cité ay tur mais bari na ñu ma approché bi ma jëlee ak samay nit nekk ci benn fexe fexe pare woon pour dugg tey ci tey jongante bi ci wàllu mairie mais tey changement yi am tey mooy ku ne bari na ñu ma approché mais tey dama doon waxtaan ak samay ay nit parce que tamit li nekk sama gannaaw tey décision bi décision bu may mën ci jël tey lu may toog waxtaan ak sumay nit ak sumay collaborateur ak association fi nekk ak kuréel yi fi nekk nekk seen ginnaaw doon ma déglu ci lépp bi loolu amee Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu koy woowee Cheikh Ba bërki démb la ma woo yàgg na ma woo pour waxtaan ak man ci projet Médina parce que nit da di bokk conviction bokk gis-gis bokk ay xalaat pour mën a dem parce que tamit Sénégal àddina bi toll sax pour tey nga dem wuti dara pour am ci ndam sax il faut que tey nga fexe am collaboration ak nit koo xam ne yéen bokk ay vision yéen bokk ay engagement yéen a bokk fa ngeen jëm bi ma wooyee ma déplacé wu ànd ak suma ay nit ànd ak suma ay frère ànd ak ñi ma nga xam ne tey projet bi ñoo ko séq ñu dem toog ak moom mu expliquer ñu tegal ñu feuille de route tegal ñu tey li mu bëggal Médina ak fi mu bëgg yóbbu Médina te ñun foofu rek la ñuy gisee parce que tey mënuñu ànd ak yow ànduñu ak yow wala ñu bëgg lëkkaloo ak yow pour doxalu dox pour lu doxal Médina ci bëgg la neex. parce que ñun nag gannaaw yàlla ak bi yàlla dimbali nañu ba lii ñuy xam ne muy làmba ji yàlla suturaal nañu bi ba nga xam ne am na loo xam ne tey. la ñuy dundale suñu njaboot yaakaaruñ ko ci kenn ci suñu liggéey lañ ko yaakaar gannaaw yàlla ak yonent bi ba nga xam ne dépendre ñu ci doomu aadama te nag nit sooy ànd ak moom dangay ngay moom ci conviction wala nga gis loola doy ci moom biñ demee seeti ko wooluñu tegal ñu programme boo xam ne tey nii dal na suñu xel boo xam ne tey lépp ci développé Médina am na si loo xam ne suma collaborateur tagaa Dia am na am na ci lu bëri après moom dana ko mën a développer mais li ci am importance tey li ñu teg ci table bi pour expliquer ban projet yi ay projet yu palpable yoo xam ne tey amul nit kuñ koy tegal tey te doo am yaakaar ci moom ànd ak nit nag neex na neexul parce que day milieu bi ñuy tey dañ ci nekk ay dañ ci nekk innocent dañ ci nekk innocent parce que moy tax parce que ñun bokkuñu benn parti Gris bokkul benn parti c'est pas un politicien mais man Médina laa far Médina laa bokk Médina jaral na ma man tey bu weesoo carrière sportive bi may def nii tey Médina jaral na ma wàcc ci tali bi Médina jaral na ma lëkkaloo ak nit koo xam ne ëllëg tey lépp lu muy dox ci àddina mooy pour Médina dem ci kanam la nit kooku nag yàlla da ko dogal ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu nekk l'homme idéal pour la Médina ma ànd ak sumay nit ànd ak sumay xarit ànd ak sumay collaborateur pour tey ci élection yii fas yéene ko ci jàppale ànd ak moom collaborer ak moom pour faire avancer la Médina